que euh, nit dof euh, génn fii nga xam ne moo di prison mm-hmm. parce que tamit euh, xawoon na fa yàgg mm-hmm. daanaka juróom-benn ba juróom-ñaari weer boo koy xool mi ngi woon prison te lu ko dugaloon prison jàpp naa ni waru foon sax mën ko waru ko fooroon mën a yàggal mm-hmm. si li ma li ma jàpp dëgg la naam dafa am ay ay ay article yoo xam ne procureur si lay sukkandiku chargé la

dëgg la naam yoon dafa war di def liggéeyam si ku tooñ waaye nag da ngay boole méngale euh, da ngay boole euh, méngale noonu la. da ngay yemale yemale mm-hmm. plutôt euh, ñi ñi ñi nga xam ne dañoo dañoo tooñoon doo mm-hmm. tey dama koy jooytu jooytu naa ko fu ne oustaz Assane Seck. Mm-hmm. comme ni dox génn na. oustaz Assane Seck bi nga xam ne chroniqueur religieux la wàllu diine la xam moom lay jàngale. Euh, xayma xam-xam bu njëkk moo bi daw Oustaz Assane Seck Magafa. Mhm. il a formé des générations si wàllu diine ñu yàgg ak moom 7FM voilà mu ngoog yàgg ak waaw 7FM waaw ñoo yàkkandoo woon groupe comme yàgg ngeen ak moom ah. c'est vrai loolu nit kooku noonu am ni mu wax Sonko bu bokkul dëkk bi na tàkk dëgg la xëy na nit mën na ko interpréter parce que interprétation moom elle est toujours <laughs> pluriel mais ki bokk ak président Macky Sall. wax na li taxaw mu ne. si le la troisième candidature na de président Macky Sall ne passe pas le pays sera à feu et à sang. ñoo yem seen wax yee yem. daanaka ñoo yem. te boo ko méngale sax voilà. te kële sax boo ko xool si na nasaraan gam ko xëy na sax mu ngi ko gën a garaawal. Mm, voilà donc je pense que souvent tamit euh, am na ay profils yoo xam ne man pour man daanaka euh, si waxin wala si bind waroon nañ leen mën a. defal leneen lu dul téye leen prison pendant autant de temps. Mm. Mm. xëy na souvent da ngay moo souvent da ngay naan da ngay dégg ñu naan la détenu politique. xam nga détenu politique dans dans dans l' dans l'absolu. Boko boo dans l'absolu. Boko boo ko xoolee prison ba amu ca. Mm-hmm. parce que ku dugg prison am na lu ñu tokki sa nodd. Mm-hmm. am na loo xam ne dañ lay ko defal comme chef d' mm-hmm. mais dans la perception c'est jàppin woo moo tax ñu naan la détenu politique.

contexte taxaw toll ak situation toll foo xam ne nit ki dina wax loo xam ne ba mu ko waxee bu tëddee ba yeew fàtte na ko wala mu rëccu ko mm. mais contexte bi taxoon mais que yóbbu ko prison huit mois sept ko ça ne vaut pas la peine alors que kooku mun nga ko yóbbu flagrant délit juge bi taxaw moom na ko hé may booy xoolal duma sa morom ah, moytu ma dee mm. xam nga yaa ngi bari karaw suba boo fi ñëwee dama lay wat nga leel mm-hmm. nga ba ko chambe et puis c'est très mm. mun nañu dugg des Euh, sur des démarches à caractère pédagogique. préventive. Yo, xam jangalé la surtout. Mhm. donc que ngay ci ay nit yi nit Pendant nit nga xey rek ñu né 100 jeunes ont finalement été libérés après quatre mois. Mm. sans suite. non lool moy le drame hein. voilà. xam nga c'est ça le ay la Fleur ñu ngi mm. tu la retiens pourquoi. Mm-hmm. maintien rek. voilà matissar ñaar maintien rek. <laughs> hein <laughs> parce que bah, aujourd'hui euh, euh, bien vrai que détenu politique a ngi faux. heureusement euh, pour nit vous n'êtes qu'une nouvelle boo xamante ne ñëpp ci content. mais aujourd'hui dafa mel situation politique situation Ousmane Sonko libération nit ñi waxatuñ ci. nous ngi xool nu mu peut-être ci mais aujourd'hui lui, c'est un deru Ousmane Sonko fan lañ ci non xam nga il faut c'est vrai man Ousmane Sonko aujourd'hui dañ ko est et fait criminel léegi lolu la d'accord ak Abdoulaye té dama koy wax la justice dañ la né il faut arrêter les gens et les juger dans un délai raisonnable. Mhm. mais nga jël nit ki tej ko fukki werté te àtte ko itam c'est pas un délai raisonnable. Mhm. nañ ko wax Manam nit ki jël nga ko japp nga ni lu mu wax war ko wax amna na sa gis-gis la tej tej nga ko ci lolu mais àtte ko gaaw mu xam fu mu féete. Mhm. mu teud kasso lu muy tëdd buy génn mu génn mu dem yoonam depuis beneen allons vers les réformes comme en France mais en France c'est la mise en examen fini c'est le mandat de dépôt mais la mise en examen en France mooy Bachir da il est mis en examen il est placé sous contrôle judiciaire il est interdit de de voyager il doit toutes les semaines comme tous les mois nous signer pour marquer sa présence sur le territoire mais il dem toog këram ba ñu définitif Vous faites ne dañ ko dugg kaso c'est là qu'il entre en prison mais bu nous ñun Sénégal dañ lay dugal kaso ba pare toog wër wër wër wër wër ne gisuñu dara demal ñibi wala wër wër wër ñëw teg la daan bo xamné mo gëna gën a lu nga tëdd kasso des fois yoy day am mais maintenant pour le cas de Ousmane Sonko ñu ngi koy des faits criminels suñu code pénal ak code de procédure pénale aussi dafa né les faits criminels l'instruction est illimitée alors que dans des faits correctionnels l'instruction dure 6 mois léegi nag fu mu toll nii koy topé kenn woowagu guko sax ba déglu ko si fan la enquête bi tollu lenn rek lañ ci gis comme acte buñu ñu posé mooy Bassirou Diomaye Faye def nañ dossier jonction entre mom ak Ousmane Sonko moy manam lañuy topé Ousmane Sonko tay ñu ngi koy topé Bassirou Diomaye Faye est-ce que def ñuko pour Fadilou Keita aussi voilà def nañ ko également pour Fadilou Keita lolu rek moy les actes qui ont été posés maintenant instruction baa ngi fan la instruction bi on doit nous édifier pour nous xam ndax luñ koy topé moko def wala defuko bu ko dé defuko ñu bayé ko dem yoonam. d' aujourd'hui doyen lu tax euh, dossier yooyu noonu xaw a dossier Ousmane Sonko. xam nga ah bon souvent da ngay dégg ñu le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mm-hmm. mais je dois rappeler euh, que la justice est incarnée par des hommes. Mm-hmm. il faut ñu koy fàttali. Mm-hmm. maintenant. la ca la ca la ca lënt dafa bari interprétation yi bari na calcul yi itam bari na ci euh, l'un dans l'autre euh, damay jàpp ni euh, toll nañu benn niveau boo xam ne lu bari war na mën a féete ginnaaw te président Macky Sall dossier bi bu dee jeexalul ko war ko waru ko bàyyi si loxo prochain président bi encore une fois man loolu laa gëm c'est-à-dire que ñu yegg 2024 ñu ne Amadou Ba la Légui Amadou Ba qui va hériter de tous ces dossiers là. ñu 2024. Euh, Khalifa Sall la Bougane Gueye Malik Gakou la wala Aminata Touré la wala Aïda Mbodj la nga dossiers aujourd'hui nous, sommes dans le temps de l'action et du travail nous devons être dans le temps de l'action et du travail. comment arrêter cette saignée Nous avons ndaw ay bras économique ñooy faatu ci bras économique ñoy yegg ci. Europe si ay conditions yu extrême mhm. tey jii nii sax man xaw ma kuy falu waaye am na ñoo xam ne bu ñu falu woon fii man ma dem Nicaragua. <laughs> fan ci waaw mato mat man nag géwél la xaw ah, xam nga maintenant maintenant moo tax it man je dis encore fois yooyu daal euh, xëy na war euh, war nañ ko war nañ ko mën a jeexal mm. jeexal ko si Euh, li nga xam ne moo di euh, justice daal daf lii nga xam ne moo ko war euh, ba nga xam ne lépp daañu mën a féete ginnaaw pour que l'on puisse en réalité nekkaat si yeneen ni dossier si yeneen ni mbir yoo xam ne dina gën a soxal li nga xam moo di dundu sénégalais yi